Euh, euh, au niveau du ministère de l'éducation nationale dafa am ben liggéey boo en collaboration avec euh, ministère des collectivités territoriales à travers la direction de l'état civil et le ministère de la justice parce que ci une question le boo xamante le concerner département ministériel la question bi l'état état civil acte de naissance parce que xalé yi suñu wara ñëw dugg école dañu am extrait de naissance ñu constatons que né xalé yi duñ am ben identité parce que amuñu kayit bi ba nga suñu wara def examen xalé duñ ko am ñu Nous, ñun en tant que responsable de l'éducation il faudrait que nous réfléchir à ce que nous trouver des solutions le ministre Mamadou Tala, jox ñu ay tegtal mo tax tay ji ñu dajé fi pour trouver solution bi solution que nous trouvé c'est ñu document de référence des documents de détection des élèves sans acte de naissance donc document nous dinañu permettre ci suñu avec le être ministère des collectivités territoriales ak de la justice avec les inspecteurs d'académie avec les inspecteurs d'éducation et de la formation nous permettre de nous mener régler problème bobo et nous notons également présence au Conseil. Depuis que depuis avons commencé commencé processus nous ñu ngi ànd ak pour dimbale xale yi pour nous mën a am kayit yi. engagement bi la euh, euh, direction de l'enseignement élémentaire ak partie prenante yëpp UNICEF euh, COSEDEP ak yëpp ñu participer à ce bi liggéey bi jël na temps yu bari comme ngeen le école l'école a fu ci Sénégal xale yi dañu dem école. Euh, avant d'aller à école da nga war a kayit soo amul nañu ñun suñu yitee mooy ñu ku am papier pour mën jang école des fa euh, droit la euh, beneen bi xam nañu tey Sénégal état civil volonté politique la c'est une priorité nationale président de la République donc ministère éducation ñu nous koy appliquer ñun l'avons dimbali ministère des collectivités territoriales ci njiitum Oumar Gueye ñun en tant que direction de l'état civil liggéey nañu ak ñoom processus bi pour ñu gis set xalé yu amoon acte yi ci école yi nan lañu défé ba ñam acte yooyu wajuri yi nañ ci dug euh, war nañ ci dug def luñu wara def euh, juge yi ñoom ñooy def audience foraine moy déplacer déplacé euh, bi séance bi ñëw ba ci mairie bi def audience foraine pour xalé yi mun a am papier des ci école lolu aussi yenen acteurs yi nekk bajjan gox yi yëpp ñom ñëpp dañu wara a impliqué loolu moo taxoon tey ndaje bi ñu juboo pour waxtaan ci set yeen mécanisme ñu def en place yo xamni yu pertinente ci matière intervention